ci mbiru mendicité bi euh, sujet pour lequel l'État ferme les yeux euh, yéen tey boo leen accédé woon au pouvoir première mesure humanitaire da ngeen di libérer Ousmane Sonko ak tous ces hommes qui sont. xam nga kon yow jàpp nga ne ñoom duñ gën avant élection yi. <laughs> Ah, loolu nga jàpp. bul ma voilà li ngeen moom lii waa yi jàpp moo tax xam nga léegi problème bi. ma ne man dama ne man dama ne sànq. sànq dama ne la dama ñëw rek sànq dama ne la. sànq dama ñu gëm. te ñu gëm ko wax dëgg yàlla mooy que Sonko dañ ko war a libérer rapidement wax naa ko léegi ak tous les détenus politiques mu bokk ci élection yi. mais euh, kii euh, Moussa man moom ma imaginer. Sonko dafa dafa dafa dafa dafa il est il est dans une procédure euh, d' instruction qui suit son cours euh, instruction bi euh, en matière de crime ñu ne l' instruction euh, peut, peut une durée illimitée c' est pas fermé te politiquement xalaatuma. mën naa juum nag euh, Ousmane Sonko libé euh, recouvrer la liberté. moo tax ma ne la non politiquement. xalaatuma ko loolu laa xalaat. moi je connais les politiques je connais les calculs politiques. Ah, ah, alors ah. yéen boo leen ñëwoon yor réew mi est-ce que parmi vos premières décisions libérer Ousmane Sonko et ses ci lay bokk. dama ne la may mun a yow li wax nii. jàpp nga ne Ousmane Sonko du génn avant élection yi. non bu contourner question bi. man li ma jàpp amul solo man li ma gëm man est-ce que boo leen ñëwee première mesure humanitaire c'est d'élargir Ousmane Sonko et ses hommes. d'abord pourquoi humanitaire. ah la ma humanitaire. non euh, yaa ngi posé problème. waaw non non non teel rek. bindil humanitaire ba sax. waaw xam nga loolu yëpp burul prétexte pour bañ a tontu. non non non première mesure est-ce que da ngeen koy libérer. non li nga wax nii. waaw ah. nangul naa la ko parce que n'est-ce pas gaawul mais xam nga loolu boo humanitaire yaa ngi yaa ngi dugg ci benn terrain ay terrain yërmande ay terrain yi nañ ko baal affaire yooyu déggoo dama ne la gis ne man def naa droit am na loo si xam tuuti soo déggee ma ne la au début de l'émission xalifa Sall bi ñu koy xaj mu nekk candidat amoon na ko seen droit usman Sonko dans ces deux procès en cours aucun tribunal aucune cour ne peut statuer fii ak février 24 bu jeex donc non man non donc il est éligible xam nga ba léegi il est éligible. non euh, condamnation sous euh, par contumace. Euh, voilà la il est il est même radié. waaw waaw wax. il est même radié non il est même radié. xaaral dañ ne dañ ne. mënatul concourir <laughs> non non non non ah, mais mais bu bu ñu duggaat ci dossier boobu. non juriste yi d' accord ñu si. waaw xam nga juriste yi moom. gars yi nee nañ li n' a rien à voir euh, avec euh, eh, avec li a reproché. voilà Ndiak Fall à son jàpp na ne dès que ñu jàpp ko. la la la contumace tombe ah euh, et que war nañu organiser un procès dans les meilleurs délais reprendre la, la procédure euh, ñoom gouvernement bi jàpp nañ loolu là n'est pas le sujet dama ne si Khalifa Sall devient président de la République parmi les premières mesures est-ce que dina ci bokk la libération de Ousmane Sonko et de ses hommes loolu laa la laaj. Khalifa Sall candidat candidat hmm? se battra pour que Sonko soit libéré Eh, eh, eh, waaye sëñ non non Moussa man mënu ma ko imaginer Moussa mënu ma ko imaginer mais mais Moussa c'est simple kon yow pour yow day topp position non Moussa bul contourner bul contourner aujourd'hui bul contourner c'est-à-dire Ousmane Sonko mu ngi prison contourne pas ñu Ousmane Sonko mu ngi prison dans six mois on va aller vers une élection présidentielle ces hommes là dañuy espérer que bu un opposant ñëwee dina mettre ah un à tout ça loolu la ñoom non non non waxuñu loolu de. dina mettre non non non dafa ndànk non non non soo déggee ñoom seen porte parole baax de bu mu wax Sonko éligible Birame Souleye li mu wax baax de. Ah loolu ay gesticulation ah, ah, politicienne la loolu la. loolu ay gesticulation politicienne la waxu politicien la. dama la expliqué même na man dama daw question dama la expliqué déglu ma wax la dama ne la El Malick Ndiaye dégg naa ko mu wax ak Birame Souleye que Ousmane Sonko est encore éligible ma ñëw rek ma ne la man mii. jàpp naa ne les procès mënul jeex avant février 24 ma wax sànq ci dem émission bi ne la notre souhait c'est qu'il soit libéré dem ci élection bi wax naa ko. ba tey rafet na maintenant maintenant pour man yow ma ñëw sa terrain yow sa picc boobu nga am bu fekkee dafa nekk ci prison bi ba ba ba après élection bi Khalifa Sall falu nga ne na bokk ci les les premières mesures. waaw ndax di ngeen ko libéré. non xam ñun non <laughs> non yow. Moussa nangu loo tontu ci kees parce que la question ko tu as posée. la la la sa question non c'est pas une question à poser en fait. parce que xamul ndax parce que ñun li ñu jàpp mooy dañ ko tooñ complot loolu la ñuy wax au départ les deux affaires wax naa la ko. <laughs> xam xam nga tey boo jëlee Idrissa Seck en 2019. yaa ngi sori de déedéet dama la expliquer non c'est important Idrissa Seck en 2019 dafa taxaw mu ne bu ma faloo damay dem rëbës tijji bunt yi génnee Khalifa Sall. les gens l'ont critiqué waxin la parce que président de la République mënul dem ubbi rëbës di génne encore que yow yaa ne séparation de pouvoir ngay wax ça demande sax dama ne la il faut restaurer nañu rek l'état de droit xam nga la ma état de droit état ci kaw yëpp a ci suuf man ma conviction forte mooy Ousmane Sonko dañ ko war a libérer mu génn nekk bokk ci élection bi. waaw bu fekkee waaw. dañ ko war Ousmane Sonko. nga ne injustice la. dañ ko war a libeere mu génn. Ousmane Sonko bu ñu ko libéré ba deux mille vingt quatre Khalifa Sall jël nguur bi est-ce que ci première mesure yu muy jël mooy libérer Ousmane Sonko. Khalifa Sall bu jëlee réew mi les premières mesures à prendre c'est restaurer l'état de droit.